sama gaa yi nag rab gaa seen mu ngi bëgg a neexaat laa lay la laa waa ahlu brique dañoo génne son léegi nii matul 30 minutes mais man monsieur le souligneur sama liggéey day gën a dox lii dafa baax dama leen di souligner lu wax yi ara wax ak wax yi sa wax benn par benn lu ne ma indil leen fan la ko waxee ñu commencé déglu leen fii lan la ara wax jënd piliyaan jënd pari jënd kiliyaan ba yow lan mooy sa rêve doon président paan sans hmm, doute lii kat moo ko moom xam lan moo tax baar bii nii dip dundu gis moom ak Birame Ndiaye dañoo def benn son te ci album Birame Ndiaye bu tudd TDOM dip moo waxoon lii dégg leen xaru jik moo ko nit ka duñu daan dama sikk ma ba ñu tijji faam man la king club bi sama biliyaan man la Chris Messi Mbappé kiliyaan nana nii nana nana nana naa xamu jik ba ak ñu tijji naa couple dip dip mi ngi naan dama sik ma tax bañu ibi fan man la king trône bi sama pilian man la chris mbappe kilian nana ni nana na xamnu tous mais ak ñoo di jingam ara ëhlu bi tontu ko lol dal ni ko boo milliard jënd chris ah jënd kilian jënd sax pay dal ni ko yow président kat boy rek kat boy wax ni mom moy président fifa ala ñu dib du gis man yow président ngay do nanal ay e. du ma ko àggale du ma ko àggale. dama si jaaxal dégluwaat leen. non mais ara mën nga tooñ. mais kenn du Deysa déglu leen couple Deysa. gat sa gat lay def kaani cokk yu teeñ ñu laaj ma solution may cukkati saani. mais Deysa Deysa lii war nga ko wax doomu jàmbur ji ay naan dañuy suqe ay cokkat yooyu loolu lii lii lii manque de la mais li gën a garaaw mooy lii déglu leen lii. xam nga. son bi OJ la tudd mais lan moo tax mu def Raps Royce Omzo daal clipam boobu noonu mu fi génne woon simple xam nga Omzo ku ko xam-xam ni daa mën tooñ comprendre nga si euh, partie clip bi xool leen fii nii xool leen bu baax yéen a ngi gis transport bi bi ñëwee mooy avant muy dem ci ci ci dib naan da koy rey ak yooyu noonu ñaar ñi njëkk a wàcc waa aglo bi rek la mais Raps bi clando bi indi gars yi dégg euh, euh, carapide bi indi gars yi trans siisu transport la ko tuddee moo tax. wa ahlu birit ñew def Raps Royce di yab gaay yi le souligneur da nga ay de non non damaa aay xam naa li wax xamna naa bele wax li dama kat mom la di di may tek ni na ma yàlla baal ñoom nag ñooy ñaan pour sa neex tukure may aadama faal. déjà déjà franchement li manque de respect la quoi say morom rappeur nak nga leen mën traiter de comédien ay naan ñoom ñooy ñànku ñoy déjà ñooy xaw kan war nga dukkure mën war nga leen wax lii yan ñett rapport ñoo gëna présent instant bi ci rap Galsen Déjà Diop lay waxal lii c'est pas joli c'est pas joli waroo war def lii lii manque de respect la gars yi bu dee kontaan ngeen ci li souligné wax leen mako en commentaire que ça.